di sant bu baax honorable député yi nga xamante ni jël nañ fi kàddu jibal fi ay laaj yoo xamante ni dañu aju ci budget ministère de l'intérieur waaye aju ci li nga xamante ni moom mooy doxalinu ministère bi buñ ko jëmalee ci wàllu élection jëmale ko ci wàllu inondation jëmale ko ci walu administration territoriale waaye jëmale ko tamit ci walu passeport yi ak carte nationale d'identité ma bëggoon léral fofu li jëm ci walu élection yi ki ci njëkk addu muy honorable député Cheikh Abdou Mbacké ginaaw bi mu jëlee kaddu ba nopi honorable député De Fall ak honorable député Aïssatou Mbodj am ay laaj yoo xamante ni jibal nañ ko ci jëmale ko ci wàllu recours yi nga xamante ni dañu dégg ni préfet yi ak sous-préfet yi amal nañ ko ci poñ boobu bala ma ci tontu dafa am loo xamante ni dama ko bëggoon a fàttali li nga xamante ni moom la code électoral bi tëral poli parti politik yi nga xamanteni ñoo sekk langu politique bi dañ ci amal waxtaan waxtaan wo xamanteni danaka daanaka yegg na ci fanweri wer te buñu fataliko li tax élection yi ñu dàqoon ko fi dàqaat ko fi dañu waxoon ci jamono bobu ni laata ñuy demat ci élection nañu càmbar saytu saytu li nga xamanteni moy processus électoral bi waaye tamit fichier bi ñu audité ko buñ ko defee ba dëppoo ci déggoo ci ak ci kaw kàddu ci la ñuy door a mën a ñëw nag xool code électoral bi voté ko door a jàpp date boo xamante ni ci la ñuy tenir élection yi nga xamante ni dàq nañ ko fi ay yoon loolu jot na jàll bi mu jàllee du taxaw fii ma ñëwoon fii ak ministre concerné yi ak collaborateurs yi ñu voté code électoral bi ci biir code électoral boobu bu ñu demee ci biir la ñuy gis naka la ñu tëralee ni ñu war a déposer candidature yi naka lañ ko war a recevoir ak bu fekkente ni benn parti wala coalition de parti wala ñi nga xam ni ñooy indépendant yi bokk ci jongante yi déposer seen ay liste d'accorduñu ci li préfet yi wala sous préfet yi wax ñu yóbbu ko ci cour d'appel yi bu ñu ko yóbboo ci cour d'appel yi bu ñu fa jógee ku ci andul tamit ci dogal bi ñu fa jël mën nga ko yóbbu ci cour suprême loolu nag bi mu amee ci Sénégal biñ ko saytoo ñu gis ni lu toll ñetti junni ak ñaar fukk ak fukk ak ñaar ci ay liste déposé nañ ko ci biir réew mi biñ ko déposé ba noppi am ay recours yu ci juddu ñu xayma ci juróom-ñaar fukk ak ñaar ci juróom-ñaar fukk yooyu ak ñaar bi ñu demee ci cour d'appel yi wax ni ñoom dañu gantal seen ay liste te dañu bëgg ñu joxat leen ndax loolu lañ jàpp seen aq ci ñu jongan bokk ci jongante yi lu mat ci fanweer ak juróom-ñett cour d'appel yi yéen ñi indi fii liste yi li ngeen wax ànduñu ci préfet yi ak sous préfet yi li ñu wax noonu la noonoo jaar yoon donc ci juróom-ñaar fukk ak ñaar yi fanweer yi ak juróom-ñett dañ ko rejeté dañu rejeté recours yi fanweer yi ak ñeent cour d'appel yi ànd ci ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo jébal recours yi ba mu waral mu indi annulation wu décision préfet yi ak sous-préfet yi mais yoon dafa wax ni bu fekkente ni cour d'appel joxe na dogal ki nga xam ni àndu ci moo xam dafa bokk ci administration wala bokkul ci administration candidat la wala mu nekk mandataire yoon may na ko mu ben clamé bu bees yobou ko ci kanamu cour suprême mais yone bobu wax lolou tamit mo léral ni dafa am ci li ñuy wax pourvoi en cassation luñ ko en cassation dañuy ni warul warul ndogal ci cour d'appel yi waruñu principe parce que droit non lay fonctionner day principe am exception principe bi moy. su fekkente ni clamé nga ci cour suprême war nañu mën a doxal décision bi nga xam ne moom nga attaqué waaye bu dee matière électorale bokku ci bu fekkee dafa jëm ci wàllu élection bu fekkente ni da nga clamé dogal boo xamante ni yow ànduloo ci donte dogal bi dafa la jox dëgg yoon dafa wax ni kenn mënagul a appliquer dogal bi loolu la ñuy wax caractère suspensif maanaam dañ koy ajandi dogal bi nga xamante ni joxe nañ ko même bu fekkente ni dogal bi dalaa jox dëgg yoon dafa wax ni dañ koy ajandi dañ koy ajandi ba cour suprême addu ci bu cour suprême addo wax ni li nga li la cour d'appel joxoon ñi ngi koy saxal dëgg boobu nag dal di sax bu fekkente ni cour suprême dafa wax leneen ñu xamante ni li nga xamante ni moom la préfet bi wala sous préfet bi waxoon loolu moo mën a am te foofu dama fay taxaw tuuti fàttali dara bi ñu déposé liste yi ba mu am ay rejet dégg nañ ñu bëri ci langue politique bi jóg wax ni yoon ci suñu réew amul indépendance yoon ci suñu réew dafa far ak gouvernement bi lépp lu gouvernement bi indi moom la ñu nar a def te sax dafa mel ni dafa am forfait boo xamante ni moom la ñuy wàcc looloo tax préfet yeeg su préfet yi li ñu def yoon def ci nar a ànd ak ñoom mais bi ñu demee ci kanamu cour d'appel li cour d'appel li jox leen dëgg loolu li muy njëkk a firndeel moy que ni suñu réew dafa am yoon boo xamante ni njaaxaanaay la tëddee waaye ñaareel bi mooy ñi taxawoon wax ni yoon atte dëgg ci réew mi waroon nañu taxawaat wax ni li ñu waxoon juum nañ te ni ñu mën a amee dëgg ci yoon noonu lañ mën a ñàkk bañ a amee dëgg ci yoon mais c'est pas parce que ci code wala ci décision de justice lépp loo xam ni yoon jox na la ko wala justice jox na la ko mu nek sa banex da ngay tatchu lepp lum la joxul nga ni ñi dañ leen corrompre wala ñi dañu indépendant wul wala dañ leen di jëllo ay décision sous la dictée parce que ñi nga xamanteni ni ñoo nekk ci tribunaux yi ak ñi nek ci administration territoriale bi dafa am li ñuy wax obligation de réserve bu leen teunk ba nit ñi mën nañ leen attaquer te ñoom duñu mëna tontu mais fofu nak dama fay taxaw wax ni ay nit lañ yo xamanteni yag nañu liggéeyal administration yag nañ liggéeyal état te képp koo xamante ni yaa nekk fii ci kaw réew bi wala nga nekk ci biir gouvernement ak noo mënti tudd ñoom li leen caractériser mooy c'est une administration républicaine li ñuy liggéey seetuñu ci ni diw moo fi nekk wala diw moo fi nekk mais dañ koy def parce que loolu lañ jàng loolu lañ xam te bu fekkente ni yaa ngi waxtaan ak ñoom ci seen ci biir bureau yi wala biir salle réunion yi ñi nekk ci biti di wax ñoom li ñu am xam-xam ci li nit ñi nekk ci biti di wax ñoom li ñu am ci xam-xam ñooñu am ñu sax asaka ji mais nous wax te ay nit lañ yoo xamante ni dañu ak c'est des personnes qui ñu républicains. lañ looloo waral ma bëggoon fàttali foofu ni li nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko seq muy élection yi am loo xamante ni suñu wàll la am loo xam suñu wàllu acteur yeneen les wàll yi nga xam politique yi euh, la ci li ci administration bi wara taxawé dina ci taxawé te biñu ñu ak légui ci lañ nek te fi lekk ñu yegg 23 janvier ak buñ ci buñ ko weesoo tamit lepp luñu wara def depp ko deppolé ko ak yoon dinañ ko def te liñ ci ñaan yalla moy benn ay bañ ci duggu te bu 23 janvier jotee élection yi ñi nga xamanteni ñoo gagné ci gox bu mu munti doon ñi wul ci gox bobu ñeu félicité len ñu xamni Sénégal non lay doxé te leneen day am Sénégal bu soob yàlla alors pour euh, ñëw léegi si wàllu inondation bi Serigne Cheikh Abdou Mbacké ci intervention dafa wax ni Touba nawetu ren bi gouvernement bi taxawu fa nam mu foor a taxawee deful liggéey bi mu foor a def wax ni indi wuñu camion yi liggéey bi ñu war a def defuñu ko foofu ma bëggoon fa leeral dara li nga xamante ni moom lañ seetlu ren Touba te bassin wu Kër Ñang euh, gën a doon li attirer suñu attention mooy que ni liggéey la bu yàgg boo xamante ni euh, mi ngi tàmbale woon ci jamono yi sëñ Saliou bassin wu Kër Ñang état bi bi président de la république Macky Sall ñëwee. def fa xaalis bu bari ci wàllu assainissement li wër jumaa ji ak ci yenn quartier yi mais bassin wu Kër Ñang bi dafa am quantité boo xamante ni moom la war a jot ci ndox bi amee yeneen daayira yu ñëw biir Touba bëgg jàpp ci liggéey bi am ay branchement yu ñu def ci bassin bi bi ñu demee ba xool nawet bi ñëw ndox mi di wal dugg ci kër yi nga xamante ni ñoo nekk ci wetu bassin bi waaye jàll kër yooyu dem ci ay quartier yi mu dendal yu mel ni ngëlëmu yu mel ni sexew ga lu mel ni ndaamaatu ba ci yoonu daaru mu indil jafe-jafe yu mag askan